yàlla suñu borom moo yor ndam. Mhm. mais man Karamba am naa gëm-gëmu gëm-gëmu man man su ma la nee bal bii dama koy dugal. gi daal di boo ci langee ba xalabaale la si biir mbaal ko jam ma la wax. jam ñaare maa leen wax benn bal la. te benn bal bi. bu ko naree man waaye yow. man leen naar bu ko narati waxuma na dañaa la li mu xeetoog naar sa bal bi moo doon dugal jam ñaar li tax gars yi di nga xam nga fi nii mel mhm. ni bii bi ma koy wax dama leen man leen lii di ngay sëriñ manoo si dara mhm. ngay jinne manoo si dara ngay dëmm manoo si dara waxuma laak naar bu xeetoog naar bos tey dama leen dugalaa si biir mbaal benn bal la ta man maa koy dugal mhm. gars yi wax ma saaga ne leen may nangam taan day bal bi maa tay saaga te benn bal la maa koy dugal bi may dugg relance kii alkaati. alkaati bi ma dugg si biir. Mhm. man de su ma defee dix minutes kaay jël si ma. ah trois minutes dugg dem naa sama yoon. Sénégal noonu laa bëgg sëriñ doxe mais fu mu toll nii ay affaire kii la ñuy dox parce que yeneen yi def loo xamante ni sénégalais ñu ngi koy seetaan te ñu ngi leen di lor de barki Serigne Fallou Mbacke coupe du monde bi si gémb ñu ngi koy dale nekk. lan ñu ne ndax ndax nga ne ñu ngi koy coupe du monde bi. mais lu nekk jiw jàpp neexul neexul jël de am nga dëgg de. déggoo li ma la wax de coupe du monde bi gars yi wax ñii affaire bi nekkul ay sol mooy ay si xamal lan la. Mhm. coupe du monde bi si géemoo ñu gaynde la nekk. ni mu nekk si géemoo ñu gaynde lan la benn entraîneur bi day doon gaynde ñaar joueurs yi dañuy doon gaynde ñett ñii supporter sax dañuy doon ay gaynde ñeent. yow sëriñ yi nga xamante ne tey yéen a war a liggéey pour Sénégal mën a am ndam foog nga doon gaynde ñi melu xotteeku ñi melu kam Karamba leen def jëm ñaari match bi mu xaatee tour deretam dafa dagg sacrifier loxo pour Sénégal mën a am ndam. loolu mooy loolu mooy lu xat si jéemañu gaynde far force mais du affaire de ay. kii yi yooyu du xam-xam yooyu du xam fii di kii loolu gars yi gëmuñu yooyu. ñoom ba maa gëm ne ay sëriñu football lañ mën nañ bal bi dañuy def Karamba li Karamba di def. man équipe dama lay gañeel damaa gañe ba léegi si bet bi laay gañe naan bi laay. foofu naan bi naan bi laay léegi ko bëgg a rey. foofu kay dara si football bal Karamba mooy le roi du ballon Sénégal le Messi. le roi du ballon Sénégal Karamba la le Messi ñu bañ ko ak ñu nangoo ko. sama yoon nekkul si buñ bañee sama yoon nekkul si buñ nangoo li sama yoon nekk lan la si preuve laay dox. ci laay dox ba ni may deewee man Karamba le Messi sama xam-xam bii ma yor du si neexal équipe nationale du si neexal président du si neexal entraîneur du ma si neexal ministre du si neexal kenn ku soxla yaa may neexal sama bopp ay milliards ñoo ci nekk ku waa Europe affaire football di xool di la jëndal ay man ku xamul Karamba dégg nga ko le Messi meilleur marabout coupe d'Afrique meilleur marabout l'équipe nationale Sénégal. Mm. Karamba c'est Karamba le Messi. du ma wax nag. kenn oowu ma kenn waxuma dara mais xam naa ba fa ñuy mujjee buñ jaaxle dañu oo seen bàyyi far fos. man naa ko man tey déggoo li ma la wax xanaa xamoo jëf foofu la xanaa xamoo jëf foofu la neexee. waaw ñoo xamul. xama jëf fu mu neexee. Mm-hmm. ñi nga gàncax jëf nga bàyyi leen bañ dem ba bëgg a la. moo boo seetloo man heure bu ma daan wax si football damay bàyyi ba Sénégalais jaaxle ma soog a génn. Mm-hmm. waxta li may wax dama koy confirmer far loolu mooy xam-xam. waaw <laughs> yéen nag commentaire bi baax a baax yéen kër Serigne ñu man de néew ma Sénégalais yi dama leen di jëlal coupe du monde mhm. man néew ma Séné néew ma Sénégalais yi dama leen di jëlal coupe du monde man Karamba néew ma leen dama leen di jëlal coupe du monde de. mais am naa gëm-gëm bi ma lay wax nii bi nekk si man bu doonee kaddu mystique Serigne mooy indi Sénégal coupe fii nii gannaaw yàlla suñu borom mhm. sama loxo bi la teg. Ah, loolu kay mooy waaw ah, bu bu ma wooyee si kàttan yàlla yàlla. dégg nga li ma la wax gannaaw yàlla suñu borom. Mhm. man su doonee coupe du monde gannaaw yàlla suñu borom. cadre mystique moo koy indi Sénégal mu ngi si loxo karamba bi mu téye. Mhm. tubaab xamul football bu rafet bal si kanam la xam. te loolu tubaab xamul xamul xamul moyen yu rafet xamul mu xam. bal si kanam bal si kanam. karamba xamul football bu rafet xamul moyen yu rafet xamul mu xam. bal si kanam te wan naa leen ko. jëf naa ko àdduna bi gis nañ ko. jëf jëfaat su may wax di wax si coupe d'Afrique di kii coupe du monde di wax bu yàggee day mel ni man damaa bëgg a dem boobu dem wala benn affaire. moo tax des fois ñu fi ñëw di ma seet si yëpp heure si côté boobu la ñuy dugg ak man. parce que wax nañ dëgg wax nañ dëgg parce que dañoo xool gisaguñ ma def benn kii xam nga parce que kenn owu ma. Mhm. owu ñu ma dañ maa woo. te ba mu gën a nekk mooy ñu wala mooy fi mhm. nga wax si gis nañ ko macha allah tey ñu ñëwaat rek ci li nga xam ne gravement bi Aliou Cissé def. tey yaakaar naa gisoo ko macha allah. Sadio Mané blessé na mais teewul boole na ko ci parce que moo yaakaar mën a dem ba ci dernier match yi wala ñu fubal ñaari match mu ñëwaat tey blessure boobu tey dañ ci dañ ci laaj lan nga ko gisee tey gisoon ko avant wala aussi Aliou Cissé. loolu ay sarax yi waroon a génn la te génne wuñ ko. ok. ay sarax yu ñu waroon a génne yàlla moo ko dogal nag mais am na sarax yu ñu waroon a génne te tey nanguñu ko. comprendre mhm. ay sarax yu ñu waroon a génne la te sarax yooyu génn mais yàlla moo ko dogal li li ma koy ñaanal daal mooy Sadio Mané dara waru ko daal parce que peuple Sénégal dañ ko yaakaar ñun ñi ñëpp dañ ko yaakaar si football bi comprendre mhm. kon dara waru ko daal li ko daal su ma ko mënoon a récupérer man mu daal moom mu dem football man ma récupérer ko Sadio Mané. li daal Sadio Mané man su ma ko mënoon récupérer man mu daal Sadio Mané dem football man moom ma gënal man mhm. Karamba. billaay wallaay talaay pour nga xam ne Sénégal man maa leen gën a bëgg. équipe nationale bi. mais am naa droit li may wax ma wax ko. la la si nit man kenn mënu si dara. waaw loolu kese la. macha allah dégg nga li ma yaakaar naa daw na yaram. Euh, tey bu sañoon tey jël blessure Sadio Mané moom mu nekk ci tànkam tey Sadio Mané dem football yi loolu mooy bëgg Sénégal loolu mooy bëgg sa réew kon jëmu ji ñëwul pour ne jëlil ma fu mu dem Qatar wala li bu ko nekkee dem Qatar paasal boppam defal lépp mais boobaa tey yomb tey euh, tey Karamba. mais mën naa dem seetaan dama yow. xam loolu surtout mën naa waaw ma waxuma damay liggéey rek waxuma damay liggéey rek mën naa toog fii ba Sénégal commencé coupe du coupe du monde. yow dañuy soxla ma ma ma jël waaye ma nekk sama bay affaire su ma neexee dem seetaan aw ma dama dem seetaan kan ko fi Sénégal. Mm-hmm. kan ni gars yi defee am naa droit. Mm-hmm. même bu ma gars yi man am naa droit su ma neexee ma ne am na dégg nga li ma la wax su ma neexee léegi. sama lu nekk si. Hmm. am naa droit ma dem seetaan kam hmm. ni ko gars yi kam kam yenn séer yi ni ñuy def rek kam séer boo xamante ni tey yow footballoo nga dem stade seetaani match ñaata yoon ngeen koy gis. Hmm. da ngeen koy gis ñu koy wane mais dañuy ni kii séer la mais donc si équipe bi la nekk sax li am naa si droit. am naa droit ma dem Qatar seetaani n'est-ce pas parce que xam nga owu ñu ma mais am naa droit man ma dem kam gars yi seetaani man. li jël sama visa man dem sama yoon. ok visa la xool xool lu muy laaj. voilà léegi ñu ngi si tam am na loo xam ci euh, góolu équipe nationale yaakaar naa nga ne bu ñëwul def li nga xam ne mooy ay sagatam après bu euh, dina encaissé bi yu bëri ni ko waxoon aussi loolu la demee Karamba lan mooy secret Karamba ci football ba lu mu wax rek mu am. waaw loolu maa leen ko waxoon góolu Sénégal xaw ma sax turam pour nga xam ne man seen yooyu. waaw waaw posant posant bàcc Serigne Fall xaw ma sax mhm. man maa leen woon te bi ma ma ne leen bu ñëwul fii sàngatu barki Serigne Fallou dina sell ba mel ni tamit te juguma si man maa taxawoon man leen Mouhamed Salah man maa ko téye man xale bu ndaw. waaw mënul dugal mënul def dara. jour bi ma taxawee dama koy bàyyi bi ma ko bàyyee bi mu xëyee ñaata ban la dugal. dugal dugal football dañ man mais ay wax ay nga nga nga déedéet. di ko courtier voilà. Mm-hmm. football kenn du ko courtier football kenn du ko courtier. Mm-hmm. te bu ma benn se bu oo wati en direct laa koy wax. sëriñ sëriñ bu ma woowatee di ma wax si wàllu football pour courtier ma dinaa dinaa jël sa photo ma weer la ak sëriñ boo manti doon bu ma benn sëriñ woowati. ñu daal woote bi nga man bañ naa ko man bañ naa bu ma yor yaa xam champion la yaa xam équipe bu mu manti doon man équipe dama wax ah. du ma wax ak ku dul président. man équipe duma wax ak ku dul ma dugg soxla. soxlawu ma intermédiaire soxlawu ma courtier man équipe du ma wax ak ku dul président. su ma nit ñu woon sax ne man ni man du ma wax ak yow man équipe dama wax ak ku dul président. Hmm. man président laa waxal.